nopp dalati na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji e faut nga koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm mbokk yi Serigne Mara Cissé Wadduha moo leen yëgal collecte de fonds bi nga xamante ne bii mu ngi koy amal le premier janvier lépp lu waay am ci dimbale ko néew di doole yi Serigne Mara Cissé mu ngi la ci woo moo xam mu doon xaalis wala sax mu doon ay koddaay wala sax mu doon lépp lu mën a dundee Serigne Mara Cissé le premier janvier loolee lépp da ko bëgg a dajale jox ko néew di doole yi lépp lu waay def yàlla moo la koy fay kon mbokk yi lépp lu waay mën mën nga koo envoyé ci numéro yi nga gis am na Wave am na Orange Money le premier janvier incha allah Serigne Mara Cissé daal yàlla rek moo lay fay asalaamaaleykum euh, am internautes yu jàmm ji info nuyu leen ziar leen bu baax a baax euh, di leen wax ba tey yéen a ngi ci seen émission lu ko waral euh, tey nag ñu dellusiwaat fii fas yéene yëkkatiwaat li nga xamante ni si moo di thème bi nga xamante ne si moom la ñu yëkkati woon semaine bële passé muy nag wàllum infection bi nga xamante ne si moom lañ doon waxtaanee. Euh, ginnaaw bi ñu ci génnee nag dañ cee am nag euh, ay euh, suñu mbokk yoo xamante ni si ñu bëri wax dëgg yàlla dañ ko rafetlu waaye di laaj suite yi am na ñoo xam ne xam naa ni dañu dañ ko dañ ko toppul ci TikTok bi loolu moo tax waaye dama leen di wax rek ne beneen yoon bu ñu defatee beneen émission boo xamante ne si gis ngeen ci seen bopp ñu dagg ko dugal ko ci TikTok bi da ngeen di dem ci page jàmm Ji info ngeen dem YouTube dem tapé jàmm ji info daal di abonné su ko defee da ngeen ni fay fekk lépp loo xamante ni si rek euh, soxal na leen ci waxtaanu Soxna Lobé da ngeen ko fay euh, jëlee foofu ngeen koy mun a amee ndax nag euh, du ñu mun a jël lépp dugal ko ci li nga xamante ni si moom moo di TikTok bi. loolu moo waral ñu defalee leen ko noonu mais épisode yëpp dagg nañ ko dugal leen ko foofu tey looloo tax nag ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci doon sonn di ko laajaat moo tax tey ñu indiwaat ko fas yéene cee def quelques leeral yooyu waaye dañ leen di waxaat rek euh, ne leen dañuy siwaat ci fi nga xamante ni si moom moo gën a intéressé ñi nga xamante ni si mooy suñu mbokk internautes yi nga xamante ni ñoom dañoo woo li nga xam ne moom lañu fi yëkkati woon muy wàllum euh, lingom bi ak euh, kii bi nu mu tuddati sax ak neb-neb bi. bi ñu fi yëkkati woon euh, pour nan lañ koy euh, utiliser ñu ci bëri amoon ci nag euh, jaaxle di ko laaj dama ni woon bu dee limon bi la da ngeen di jël benn litre ndox butéelu Evian yi yu un litre yi moom ngeen jël def ci ndox bu ngeen ci defee ndox da ngeen ut doomu limon bu jaune bi ngeen raxas ko ba mu set. raxas paaka même bi ngeen koy daggee bu leen ci xeeb dara ndax microbe moom dafa sew ba pare ni mu mën a duggee yow mun na duggee noo xam ne euh, doo ci bàyyi xel euh, su ko defee nga daal di koy dagg jël limon bi daal di koy nal ci euh, litre ndox bi su ko defee nga daal di koy tëj heure boo xamante ne si rek yaa ngi dem ci toilette bi nga yóbbu ko waaye boo ko yóbboo it na ngeen fexe ndox mi ngeen xamante ni si moom ngeen di njëkk a wisoo maanaam moom ngeen di njëkk a raxasoo bu mu bokk ak ndoxu limon bi maanaam ndox ordinaire bi ngeen di njëkk a jël wisoo ko ba pare. après ngeen doog a jël ndoxu ndoxu limon bi ndox bi ngeen mélangé ak limon bi ngeen doog ko yàllandee seen kanam après xam nga si lay mujj ngeen daal di teg ko ne moobu laa wax mën ngeen koo def euh, deux fois ci semaine bi ngeen arrêté ko te loolu dama koy dama koy baaxee ñi nga xamante ni ñoom ñooy sama sœur yi nga xamante ne si euh, maanaam euh, ni ma ko mën ay jànq lañ maanaam sëyaguñu ñoom dama leen i dama leen i ñoom ñu jël limon boobu même naan bi Euh, da nga ci gis ñoo xamante ne si euh, pour wàllu jeexaay bi comme ni ma ko waxee noonu dañ koy daw mais deux fois bi nga ciy naan loolu taxul nga nga nga jeex benn jeex bi euh, faju la deux fois nga ciy nga ciy naan nga di ci raxasu loolu day dindi day rey microbe bi ci biir lee ngay raxasoo tamit da koy da koy da koy rayaalee pour yéen ñi nga xam ne yéen a ko doon laajte bu dee pour jànk yi noonu ngeen koy defee bu dee pour jeeg ji nag ñoom amuñu ci problème mën nañu utiliser li ma mën nañu utiliser dem bi mais infection bi des fois day ute am na ci ñoo xam ne dafay egg fenn foo xamante ni si li ñuy mën a dem jëli rek moom moo di li ma leen di conseillé moom moo di euh, neb-neb bi dee leen ko jël benn kuddu neb-neb ngeen teg benn litre ndox te marmite bi ngeen koy tegee tamit nekkul marmite boo xamante ni si euh, dañ ciy togg ay soos wala ay ñamu saf-safal yooyu baaxu ci bu ngeen ko ci defee it mën na mun na mën na indi mun na nekk daal di faj jàngoro muy jur jàngoro léegi boobu marmite da ngeen koy seet nu ngeen ko mën a daal rafetee même bu dul marmite bu ngeen amee fenn fu ngeen mën a tàngalee rek euh, foo xam ne dina bax ngeen jël benn kuddu neb-neb ngeen sotti ko ci ci ci ci marmite bi su ko defee day bax euh, ñaar benn ñaar mu bax nga fay sa gaz baax bi pour microbe yi tamit bu ko fa fekkee mu mu deñ nga daal di koy teggi li nga xam ne mooy téexit bi danga koy dindi tuut ko loolu kenn soxlawu ko waaye bi nga xamante ne si moom moo di ndox bi moom ngay garder def ko ci sa bitéelu Evian nga di ci raxasu saa boo demee ci toilette bi comme ni ma waxee ci limon bi rek njëkkal ndox male ba pare ndox ordinaire bi njëkke ko ba pare après nga doog a jël ndoxu neb-neb bi nga raxasoo ko am na ñu ko essayé nag quelque daan na ma lobe ndoxu neb-neb bi dafa saf boo ko boo ko sànnee sa kanam da ngay gis muy fet-fet yi ma ni ko noonu la parce que am na infection fu muy egg ngay jàpp sa kanam di ko xasan di ko wokk day rocceeku rocceeku yooyu muy def nag mooy waral même bu dul ndoxu neb-neb sax yow ndox ndox ordinaire bi rek boo ko jëlee eh, raxasee ko sa kanam da ngay gis day saf bu ci ndox demee day saf parce que dafa rocceeku moo tax loolu moo tax nag neb-neb bi tamit bu ngeen ko ci defee day gën a saf mais neb-neb dafa ay ci góom bu ngeen ko ci defee te ñeme ko rek da ngeen di gis dangeen ngeen dangeen da ngeen da ngeen di am jàmm euh, ndax hôpital boo fa demee tey yóbbu fa sa góom amoo fooy munti jaar wala looy munti def ba du ñu njëkk a jël nettoyé ko ba mu set wicc Euh, ak alcole doog doog doog doog koo faj doo ñëw noonu rek ñu jël pansement beeg yii rek tegal lu ko déedéet dinañ ko nettoyer ba dégager lépp loo xamante ni sii lu fu warta nekk la ñu dindi ko faju bee tamit noonu noonu euh, noonu la mel ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax yéen jeg ji ngeen di ko ngeen di ko farataal di ko def bu ngeen ko dee def rek da ngeen di dem ba ci biir ngeen di gis ne lii kat baax na si yéen ngeen continuer ko am na it góor yu ko laajte góor ñi it muy dal noonu euh, affaire bi di leen dal ñoom itam waxoon naa ko fi mën nañ koy jël di ko raxasoo mun nañ koy jël di ko raxasoo comme ñoom bu fekkee célibataire nga waa dangay am gaz bu ndaw ci sa biir néeg jël ko nga defar ko sa bopp loolu koy aajawul sax mu am jabar ak mu ñàkk am jabar bu dee ko am jabar la tamit normalement dangeen ko war a def yéen ñaan ñëpp ndax mbiru infection bu ko kenn yoree euh, ci ci buumu nekk ci buumu sëy am jëkkëram di ci ànd ak moom jëkkër ji da ciy laal te bu ci laalee bu fekkee ne jabar ji tamit moom mooy faju kase jël neb-neb boobu di ko defee même bu fekkee hôpital lay dem tamit di dem hôpital di bàyyi jëkkër ji wala muy faju ci wàllu olof bi di di bàyyi jëkkër ji faj boobu du mën a wér mun nay tane mais day dem di ñëw ndax am na ko ma ko laaj ne ma damay ka yàgg faju ci euh, dem naa yàgg ko faju daal pour bañ a tooñ dem naa yàgg ko faju mais mënul fexe ba wér ma su fekkee danga am jëkkër foog sa jëkkër di faju soit ci hôpital bi wala mu wala mu dem ci olof mais foog yéen ñaar ngeen bokku faj bi pour mu wér mais bu ngeen bokkul faj bi euh, ku leen mun ti faj tamit da da ngeen di sonn day dem mbir mi day dem di ñëwaat loolu moo tax sama sœur boobu ko laaj ma wax ko loolu foo góor ñi tamit ñuy nangu ñoom itam di di dem. di saytu seen bopp ak fu mu munti fu mu munti doonee rek foo xamee ni daal fii sa jàngoro dina fa wéree demal nga def ko te bu ngeen di faju mu nekk yéen ñaan ñëpp. su ko defee yéen ñaan ñëpp yéenay am jàmm pour ñi nga xam ne ñoo topp naan euh, mbir mi dañuy faj mu taw a wér ak affaire yooyu ci ci côté yooyu rek lay demee ndax bu di kii di faj te kee fajul moom day day daal di euh, métti. beneen conseil bi may jox tamit euh, li nga xamante ni moo di sama sœur yi nga xamante ni ñoom itam duggaguñ ci néegu sëy ci wàllu cet gi ñu baal ma nag xasuma leen waaye ñu ciy bàyyi xel bu baax ndax infection bi nit mën ngaa set koo xamante ni si yor ko àbb tubéy moom mu yor infection bi mu mu àbb la tubéy simmi ñëw jox la xam nga loolu bu ko toppaale yow nga jël ko sol ko mën na kaa indi xam nga ni kon salte woo mais dañ dañ la ko indil moo tax ngeen koy bàyyi xel bu baax xeetu abalante sérieux abalante euh, tubéy yi ngeen ngeen ci bàyyi xel bu baax parce que tamit mën na leen a indil mën na leen a jural ay ay loraange beneen bi mooy silibu nilon yi euh, jànq ji ñu di ko moytu nañuy bàyyi silibu nilon silibu nilon baaxul coton yi mi ngi fii bu ngeen demee si fag jaay da ngeen am foofu ay coton fu ngeen munti am da am ay silibu euh, coton ngeen moytu nilon bi baaxu ci ak it dem duus ñu baal ma tamit ci kàddu gi de faw ma jéggalu foog may jéggalu nii ndax dafa am ñoo xamante ne si des fois da nga yëkkati wa waxee ko nii ñuy waxee ko ne ndax waxoon naa fi wax wokkatu ndeysaan am ku ne ma soxna Lobé de li nga wax am na solo trop waaye wax wokkatu bi nga wax dafa ñàkk kersa te yàlla xam na ni man jëleewu ko pour wax leneen may wax sama sœur boobu maa ngi jéggalu euh, ci ci wax jooju nga xam ne woqatu bi ma wax da koo métti maa ngi ciy jéggalu waaye su ma amee beneen baat bu ma ko tuddee pour mu gën a rafet jàppal ni dinaa ko def ndax ñun ñoo far su ko defee euh, bu ngeen demee toilette ba noppi da ngeen ni tuur ndox da ngeen ni gis da ngeen ni tuur ndox bu baax waaye day am luy des yuy des yooyu noonu maanaam ñu jaar ci digg bi rek saw mi bu ngeen sawi premier saw bi da ngeen war a tey tuuti toogaat nag seen bopp tuuti am na yeneen tokk tokk tokk yuy génn yooyu yëpp ci xeetu saw bi la bokk. am na ñoo xam ne dañuy yàkkamte rek dugg ci duus daal di saw rek gaawantu génn rek xëpp xëpp ndox bi rek daal di génn sol seen tubay dem déedéet day am luy des te liy des loolu foog nga jël sa temps yow tam boo boo duggee ci duus bi nga xaw a naju tuuti mu daal di toppante génn rongalaan tokk tokk yooyu bu ko xeeb gis nga boo ko ca bàyyee jël wis ndox bi wisoo ko daal di jëlaat silib bi lu mu gaaw gaaw sol ko yaa xam yàqamti googu mënti yàqamti saw boobu day génnaat te bu génnaatee day ñëw fekk si li nga xamante ne si mooy ndox bi nga raxasoo laal silib beeg yooyu gis nga yooyu mën na dem ba indi microbe te ñu bëri bàyyiwuñu xel ci lu mel noonu ndax xam ngeen ne saw moom ci ay silib wala leneen ak leneen doxul jàmm donc kon nañ ciy bàyyi xel bu baax bu fekkee am na ñoo xam ne amuñu woon seetlu boobu nañuy faral bu ñu dematee sanguwaay ba pare ñuy ñuy xaar tuuti gën a nag dañuy gis affaire bi di nat ñuy maa ngi jéggalu ci loolu ñoom ñu ñuy def loolu da ciy baax de même que góor ñi tamit ñuy def loolu da ciy baax ñoom itam góor ñi caleçon yi nga xamante ne si ñoom dañ koy sol ñoo xam par deux jours lañ koy sol bu dee ñi nga xam ne marié wuñu du ñëpp nag ndax am na ñoo xamante ni moom buñ ko solee bu nga ne bu ñu wàccee dañ ko simi fut ko waaye du ñëpp xëy na temps bee tax wala taluñu ko waaye ñuy moytu di ko sol sol yu bëri ba pare te duñ ko dugal ci ndox def ci ot de javel fóot ko weer ko ñuy bàyyi di ko tegale sol bi sol bi yooyu noonu mun na dem tamit ba dugalal leen microbe ndax microbe moom loo ci mun munti dégg rek euh, salte la kon ñu ci ñu ciy bàyyi xel bu baax ndax nag ñu bëri mu ngi leen di dal mais seetluwuñu yenn yu sew sewaan yooyu noonu ngay ñàkkal fayda mën na kaa dugal te ñu bëri amuñu ci seetlu kon sama mbokku góor yi ñuy faral di def loolu ñoom itam suñ koy def dañuy dañuy am li nga xamante ni si moom moo di eh, jàmm waaye nag bi gën a garaaw nag léegi eh, ci jigéen ñi ci jeeg ji foofu laa jëm si nañuy moytu yenn ci xeetu produit yi nga xamante ni si ñu ngi leen koy jox wala ñoom jeeg ji ñooy dem di ko wëri ñu leen koy jox pour neexal seenub sëy te ñu ngi koy utiliser mu ngi leen di gaañ ndax nit a ngi fii jël mbir mu mel noonu utiliser ko ba mu jural ko fu mu toog jug taatu séram yi di tooy wala dina dem ba cëram yi dootuñu mën a ti téye dara fu mu toog jug day day day tooy am na ci ñoo xam ne couche bébé yi la ñuy mujj jël sol ko teg ci silip dem ak ñoom nga foo ni ñoo ngi wér fekk wéruñu ndax rus nañ koo wax ndax Sénégal man bi ma defee émission bi thème bi ba pare laa doog xam ne ñu bëri ndeysaan kersa da leen a sonal ndax ndekete nit a ngi dund loo xamante ni si bëgg na ku ko ci dimbali waaye xamul yoon bi nga xamante ni si moom la war a aw euh, ba ñu ba ñu ba ñu dimbali ko ci ndax euh, xeetu feebar yooyu dafa nekk feebar yoo xam ne dafay dafay ruslu pour nga wax ko waaye da jàngoro boo xam ne jàngoro bu ñàkk kersa la faw ñu koy weer ndax sa feebar boo ko weerulee euh, du mën a du mën a du mën a wér waaye nag société bi noonu la demee am na ñoo xam ne dañuy wax mais am na ñoo xam ne nii ndeysaan ñu dee ak seen feebar di dem ak seen ngor moo leen gënal fuuf ñuy taxaw di ko wax soit ñii dañuy ñàkk lu ñu demee hôpital moo tax du ñu dem ndax nag xam nga ni boo xëyee téeméer të la ñaar téeméer boo war a yóbbu hôpital euh, waxi noppi te Sénégal moom mooy loolu euh, dimbali la ci ay wax lañu gën a mën ci di la dimbali ci ci saa sa bu sa soxla taxawee mën nañ la weeral sa jàngoro te duñ la dimbali benn ordonnance bu ndaw duñ la ko jëndal tey koo demoon ne ko dimbali ma lii moo ma dal classe ku mel ni lobe téewul làmmiñam dama naan la waaw ba pare daal di génn ku romb boo nee ndaxte ne sama la dafa feebar de moom de mbir mi moo ko yor xam nga daf ci am sama classe gi xamante ni teewuñu seen làmmiñ dañoo rëy làmmiñ amuñu sutura amuñu dara amuñu sag ñoom buñ la xamalee weer la ba nga ni lay te am na gor yoo xamante ni nag nga weer leen ñu dee sax moom moo leen ko gënal lii moo tax nekk te ñu bëri dina patt ak seen feebar bañ a wax dara waaye man dama préféré dee leen weer feebar yi ndaxte feebar yi ñoo gën a ñàkk kersam ndax mosoon naa dégg ci benn médecin mu ne euh, infection mbir la moo xam ne jarul nit di ko xeeb bu mu dal ci benn jigéen ba mu xeeb ko ndax nee na na nga koy xeebee dinaa lii garaawul wala nga koy soofantal di ko bañ a faj nee na bu yàggee ci yow mën naa dem ba ibbil yeneen buntu jàngoro yu gën a garaaw loolu te bu boobaa dalay indil ay jafe-jafe doo xam foo koy waxee kon nag nga teel a dem saytu ji sa bopp daf ciy baax moo xam nag ci côté olof bi la moo xam ci côté médecine bi waaye fépp foo xam ne fii daal boo fa demee sa wér a ngi fa man soxna Lobé li ma lay xelal mooy demal jëli ko ndax nag euh, doomu aadama moom wér rek moom moo ko jig ndax boo wéree rek ñàkkoo dara te boo wéree di nga mën a def lu ne waaye boo tawatee looy def dañ la koy defal loolu nag yàlla nañu ci yàlla musal te yàlla bu feebar yi eggu foofu yàlla na feebar yépp am saafara loolu la ñuy ñaan ndax jigéen bu ne jigéen nga te xeetu infection bi jigéen buy yaakaar ne mucc nga ci dangay nax sa bopp bul set set set set ba naagu bul ne man damaa set a set a set ba lii duma dal déedéet naagu jigul kenn dee leen moytu tey fagaru loolu lañ ci mën a loolu lañ ci euh, am ci li nga xamante ni si moom lañ ci mën a wax euh, mooy nag xeetu saf-safal gi ma doogoon duggaat pour waxaat ko ndax nag bu ngeen xoolee am na benn jeeg boo xamante ni si xaw na ko yóbbu musiba te mu ngi dund loo xamante ni si lu ko xaritam joxoon la euh, ci jamono bañ ko takkee mu dem di ko ko jéema utal xam naa da ko doon utal pour luy neexal sëyam wala pour jëkkëram du uti keneen mu dem jël mbir yooyu dem jox ko ko mu di ko utiliser xam naa ne daa mel ni ab lobe mu texet moo xamante ni boo ko newul arrêté du arrêté day foo comme mbir mi baax na rek wala xëy na jëkkëram ne ko kontaan macha allah lii rek mu ràkkaaju bëgg a foo ni looloy yoon bi tey ba mu jural ko fii li nga xamante ni si mooy eh, xaw xeetu infection man mun mënumaa xam lalla la sax ndax sama xam-xam dajaa jeex ma yebal ko fa nga xamante ni ñoom ñoo ma ëpp xam-xam ñoo ko jàng ndax nag bugguma cee dugg ndax fam fa mu egg ca moom dafa dafa doy dayoo ndax nag dem na ba jëkkër ji nangootul jënd ordinance ndax bi mu ko leeralee dëgg gi da ko demante santuma la woon pour ngay def loolu donc da ko mujj bàyyi ay mbokkam xaritam ba nga xamante ni moom la ko doon defal si xarit ba moo ko njëkk a wan ginnaaw te moom ma doon ko jëndi affaire yi ñëw di ko ko jox muy xeetu saf-safal yooyu ñuy def ci kanam pour di ci bégal seen borom kër xam ngeen nag di di di ut lu neex nit ba yow fekk nga loraale ci sa bopp am na lu ko gën gis nga xeetu saf-safa xeetu lii na mbir mi set rek sama mbokku jigéen yi nañ ci bàyyi xel bu baax ndax mbir mi set na ngay toppatoo rek am hygiène mais muy saf ak muy lewet loolu yàlla moo la koy bindee ndax am na ci jigéen ñoo xamante ni suñu borom moo leen bindee ñu lewet da gis góor xëy jox leen dépense ñu togg togg ba dara du ca manqué waaye boo ko ñemee xam ne lii dafa lewet loolu ca ndaw sa la yàllaa ko bindee lewetaayam boobu waaye bu dee ku la mën naa jël ñànqatang rek riij bëgg a sotti ci barki rasulilaay da ngay lekk ba foo ni kii dépense ñaata kii lañ ko jox mais kooku yàlla moo ko bindee mu saf kon nag kenn ku ci nekk ni la yàlla bindee demeel noonu bu la yàlla bindee lewet jàppal ci sa lewet bi te fier ci bu la yàlla bindee nga safle jàppal ci sa safle googu tasant ko ci bu baax a baax du dëgg kon nag nañuy nañuy moytu xeet yooyu euh, bu baax a baax léegi nag damay dem ba fële euh, jàmm gën a si Euh, dem dem ji ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, kaay xool couture gi nga xamante ni dañuy faral di jàpp ci li nga xamante ni si moom moo di euh, col gi xam nga ñoom <laughs> saa su ma fi toogee rek <laughs> te waxuma leen xam ngeen ni day daal di doy waar ña nga fële ci jàmm gën si kàmbaaw près de fële nekk jàmm gën si hmm, ci wetu case des tout pati bi seen numéro téléphone nekk 78 281 68 euh, 82 moom mooy euh, li nga xamante ni seen euh, numéro téléphone bi nga xamante ni boo soxlee yu mel nii ak yeneen ak yeneen boo ko fa soxlee rek boo demee incha allah da nga fay am yi nga xamante ni nii yu dàq yi la mbokk yi di leen jox dig daje ba beneen di leen wax rek su ma fi yëkkateetee benn kàddu boo xamante ni am na ku mu laal di ko naqarlu man soxna Lobé maa ngi koy jéggalu te xam ne matadik doomu aadama la waaye su fekkee ni am na lenn lu ci jub nañ ko bokk santee ki nga xam ne mooy yàlla suñu borom kon nag di leen jox dig daje ba beneen incha allah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 nopp dalati na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji il faut ko koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp